Papa, papa, kaya nyo min, kaya nyo. Eh, Ay, kule. Wa aeroport, no waron nyo. Wa aeroport. Papa, Papa, man, no.

fal falay jaay bu kenn dem mooy kon no ba te ay wax way ay war Thank you. mais man de j'espère que kër yi ñëpp génn nañu si baax boo dee boo dee am na ñoo xam ne yeewuñu de. ah am na ñoo xam boo dee ñu ci biir. non yeewu nañu waaw lii lii nga war a yàq presque yëpp yàq. ñii depuis. dañuy commencé léegi ñu ngi leen di. Bakuran dililit mereka di mata. Apa ini tak di tingkat? Dia sami pet. Wah, ini tadi ada pun sahar di mana je. Terbi bom banyak lah. Oto oh. oh, ita kawan sini, oto oh, ita kawan sini. Oto iya pun dari lah surat lagi. Kiranya ini lan mau. Gaya tu dosa mereka. Vediamo Aperini. No, Aperini. Aperini. Pur, pur chi begin, er. Ma non è affatto, non è ni fa def ko na xale yepp gan ni xale da gis na xale yepp mel mel gel bu jaru ni daw waaw len bax mu ci bit am na ni def wa ben pa mo def ci Sa kami, yang ini di sa kanya? Yang ini sa kanya? Ano na, kanang kanang na rin. Ano?